gannaaw buñu leen nuyoo mbokki Sénégal ak mbokki bitim réew fu doomu Afrika nekk rek ñu ngi lay nuyu fu doomu Sénégal nekk it ñu ngi nuyu euh, li war a suñ kàddu nag bokk na ci xew-xew boobu xew siin ñu fas yéene ci ñëw indi suñ participation ndax boroom xam-xam yi kat seen participation bokk na ci manam bepp musiba bo xamni bi yang koy deg te xam lenn lo xamni bu ko nit defé du du ko dal war na ko wax kon nak lolou mo wara a suñuy su ko defé ngeen gis baat yoy ñu bind moy allahur rahmaanu iyyaka na'budu wa iyyaka nastainu mom ngay répéter 33 bu ko defé nak da ngay ut lu toll ci lem demi casu verre demi casu verre nga def ci lem tiim ko jël sa kurus jàng ci allahu rahmaanu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu 33 soo ko defee nag nga ëf ko ci kaas bi waxuma tufli nag ëf nga ëf ko ci lem bi mooy ci kaas bi su ko defee nag nga daal ci mos koo ci yéene nga jox ci mos ci ci kàttanu yalla tawat googu ak geneen tawat judut mom moom sax bude luy walé duko wal kon lolu sunu participation la suko defé nak allahur rahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mo mo japp 1440 di atum julit kon mbokki xiwala ngok kiko don def moy sen mbok alaaji Malick mo sunu participation joxe sama participation ci li nga xam ne xew-xew bobu ñuy dégg di ñaan yalla suñu borom defal ñu dégg ak wa rahmatullah